Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 16 avril 2024 euh, sur VIP People TV, la chaîne des grands événements suñu jógee foofu dañuy dem sur la ville sainte de Touba et la ville sainte de Tivaouane ginnaaw bi nga cinquième président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye Mingi ci bopp Sénégal première visite officielle bi nga xamante amal nako fi ci territoire national bi manam première génnam mi ngi ko jagleel ñi nga ñaari ville sainte yoyu li Touba Mbacké ak Tivaouane Kamatini bu nga xamante dem na ki nga moi ni la khalif général des mourid Serigne moustapha Bassirou Mbacké bam fa jógee la dem fele ci Tivaouane c'est ki nga mo fa togal Allah, toogal malik si Rabbi Allah, taala fofu ci la ville sainte li Serigne si Mansour muy ñaari visite yi nga ni le président de la République Bassirou diomay fay amal Nako ko démb ci altine bi fukki fan ak juróom ci wéru avril 2024 première sortie ci territoire national bi Konyari ko ñaari keuru diine yoy ginnaaw bi nga xamanteni juste ñu ngi sogo ci élection présidentielle yu 24 mars yi nga xamante ni maanaam dafa joxe ay éloge jaar di ko abaat que lépp loo xamante ni suñu ay institution la dañuy gis partout ñu salio li nga xamante ni mooy solidité jëmle ko ci pilier yi nga xamante ni moo tenir tey suñu république notamment suñu sukkandikoo ci conseil constitutionnel jaarle ko ci foyer religieux yi dafa mel ni benn solidité la boo xamante ni dafa affiché wu jëm ci xar kanamu li nga xamante ni mooy qualité accueil bi nga xamante ni jagleel nañ ko kii nga xamante ni mooy suñu nouveau président de la république di son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ginnaaw loolu nag ci lendemain élection présidentielle yi nga xamanteni génn ci le 25 euh, le 24 mars du mois dafa toré ay louanges yo xamanteni daf ko déféré jëmale ko ci nuyu ay institution ba nopi dal di loué partout li di solidité maanaam ndëgër laayu yenn structure yo xamanteni mo tenir li di suñu république notamment li di conseil constitutionnel don ben arbitre jëmale ko ci géopolitique politique bi nga xamanteni tenir nañ ko en dépit ay assauts yo xamanteni dañ ko répété jaarle ko ci mouvance présidentielle ak ay alliés ginnaw lool nak dembu li di qualité accueil bi nga xamanteni ni nañ ko kii di le chef de l'état Bassirou Diomaye Faye

dembu ci altiné bi fofu ci Touba ci benn visite bo xamante ni de courtoisie la jëmale ko ci khalife général des Mourides ki nga xamante moy mooy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bi nga xamante mom ci bopam moko jox li di parfaite illustration jaarle ko ci li nga xamante moy réalité di dëgg ginnaw bu mu egsee ci li nga xamante moy mooy dëkk bu tedd bobu di Touba Mbacké bu juróomi waxtu jotee ba mu tek fukki minute ki di chef d'état Mom ci bopam bi ko gunge woon sukkandiku ci benn délégation bo xamante bu restreint la ginnaw lol dal la amal waxtan ak ki nga xamanteni moy le guide religieux ci le sukkandiku sëñ Muntaxa dal di koy offrir li nga xamanteni moy ben benn sijaada jullikaay ak li nga xamanteni moy ben exemplaire u Coran li ben kamil bi nga xamanteni ni suñu sukkandikoo ci ñi nga xamanteni ñom ñoo assisté won ci rencontre bobu ki di chef de l'état bi di son excellence monsieur Bassirou Diomaye fay promettre na que li ki nga xamanteni moy mooy sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacké di khalife général des Mourides que li di gouvernement bu Sénégal dina continuer nek ci sen wet en tant que xalif pour accompagner len dimbale leen l'équipe ci bép action bo xamante du ci profit communauté lay doon également ñu daldi évoquer li nga xamante moy problème mu ndox bi ak problème li di question inondation yi nga xamante ne won nañ ko bu baax ci màggalu touba bi ñu gën ba nopi mu daldi koy promettre dinañ ci indi ay solution yu bare bare en tout cas muy cadre yi nga xamante dal ki di président de la république son excellence monsieur Bassirou Diamay Faye dem na séti ki di xalif général de mouride de sëñ moustapha Bassirou Mbacké ñëw fa ak yar ñëw fa ak teggin ñëw fa en tant que talibé

gis koo xamante ni ku déggal ay kilifa lañu lol dal lañ fa gis ci tuuru ki nga xamanteni nak moy khalif xalif général des mourides mom dal fàttaliku na que ke lepp lo xamanteni yalla xam leen ko jox na ko pouvoir bi nga xamanteni tay suñu jullee jaarle ko ci réussir jaarle ko ci président de la république yi nga xamanteni ci benn tontu la koy jox muy benn patriarche boo xamanteni tay tey lépp loo xamante daf ko entremise jaarle ko ci porte parole am bi nga xamanteni ni moom la préféré d'abord mu souhaité ko lii di bienvenu bi kii di ganam ginnaaw loolu nag

def lepp lo xamanteni ni rek moom moko sop je crois que yalla moo koy dal daal di koy décider pour que mu mën diriger li nga xamanteni moy Sénégal mi ngi koy xamal yalla mom la tànn pour mu mën diriger Sénégal ñu bëre nek nañ fi tànn len kon na japp ni que c'est la volonté divine motax tax mu koy xam ni que lepp lo xamanteni choisir nañ ko na xam ne ni que dal ay ñaan la koy def dal di koy accompagner gungé ko ba nopi dal di prier notamment que li nga xamanteni moy mooy bi nga xamanteni porte nañ ko ci li nga xamanteni moy mooy pour que mu doxal Sénégal ñu daal di koy couronné ak ay succès lo xamanteni dafa wara a def lepp lo xamanteni ay yaakaar la bañ a jamais fi nga xamanteni moy ci sénégalais batay suñu sukkuliko ci suñu benen source mi nga xamal dal ci bop li nga xamanteni moy délégation bi nga xamanteni ño composé won ñi nga xamanteni ño gungé won le président de la république Bassirou Diomaye fay ñen ci ay collaborateurs la ñen ci directeur de cabinet yi le ku melni ni Mary Teuw bi nga xamanteni mom le président de la république daldi foulé li nga xamanténi moy mooy daru minam fi nga xamanténi ben résidence la bo xamanténi daf ci abstenir jaarle ko ci traverser lepp lo xamanténi ay dal la manam tànku nen nga fay doxé ginnaw lol nak muy ay salam yoo yo xamanténi usage la bo xamanténi ki di Cheikh Bassirou Mbacké Abdou khadra mom ci bopam mo ñëw accueillir ki nga xamanténi moy ci bunt bi ki di chef de l'état ginnaw bu mu entretenir ak mom ak li nga xamanténi moy patriarche bi si la jël li nga xamanténi moy première parole bi jagleel ko ki nga xamanténi moy sen gan foofa ca cité bi nga xamante moy la ville sainte de Touba résumé ko daal di martelé que li nga xamante moy ferme volonté daldi di gunge kii di khalif général bi ci bép activité bo xamante ni imploré nañ ko suñu sukkandikoo ci Yalla subhanahu wa taala pour que ñu mëna accordé leen gudd fan mujj rafet ak wér ginnaaw bi nga xamante ni ñoom danañ nekk ci wetam dal di xam lépp loo xamante ni tey lii di ville Sainte Touba war na ko mën a entreprendre jëmale ko ci ay bénéfices si population bi ba noppi sukkandiku ay ñaan si yàlla subhaanahu wa taala mu accordé li nga xamante ni mooy gudd fan ba noppi dal si bolli wérgu yaram ak li nga xamante ni pour que ñu mën a eggale li nga xamante ni sumb nañ ko mbébét nañ ko pour que ñuy réaliser lépp loo xamante ni seen ambition la ci bopp Sénégal bi mu jógee foofu nag dem na bi nga xamante ni mooy dëkku Alaaji Malick rabiyallahu taala foofa ci Tiwaawan ñu fekk fa ben dispositif bo xamantene dañ ko mettre en place keur khalife général des Tidianes ginnaw bu mu excé mom le chef de l'État accompagné li nga xamantene moy ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine di ministre du transport euh, El Malik Ndiaye ak ki nga xamantene moy directeur de cabinet di Mary Teuw Niane kii di président de la République du Sénégal son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bu mu xamalee ni que ben benn tête à tête boo ko ak Serigne Mansour di xalif général bu Serigne Babacar Sy Mansour ginnaaw loolu nag durée bi na ci quarante minutes de xamante ni dal dal nañu dem fofu ci grande mosquée ba bi nga xamanteni mo nek ci cité religieuse bi nek fofu ci Touba ki di le chef de l'État, ginnaw bu mu ay doxee tànku nen si le foulé li nga xamante moy mooy suuf soosu nekk foofa ca ville sante be nek ci djumaaje ginnaw bu mu requérir li nga xamante moy niveau Zawiya elage Hadj Malick Sy ak li nga xamante moy mooy Serigne Babacar Sy en tout cas ki di le président de la République euh, Bassirou Diomaye Faye dal dina adoubé ki nga xamante moy Abdoulaye Wade adoubé ki nga xamante moy Macky Sall ñi nga xamante ñom ñoo fi nekkoon fi té mu wuutu leen fii ñoom seen première sortie nationale defeewuñu ko ci kër ville sante yoyu waaye mom Bassirou Diomaye Faye daf ko défé ci këru ki nga xamante moy serigne Touba xaadimu rasul jógee fofu dem fële kër Alaaji malik si rabiyallahu salaw xamna ni non la koy defee fofu keur Maam Baye Niass non la koy defee fofu keur Seydina Limamou Laye kon yaakaar naa ni mën nañu am yaakaar ci ki nga xamanteni moy suñu nouveau président de la République ginnaw modestie ak humilité bi nga xamanteni mi ngi koy woné yar ak seegin bi war na jox espoir bép sénégalais bo xamanteni ni war nga jël sa bët tek ko ci yaakaar ba nopi daal di gunge ki nga xamanteni moy mooy Bassirou fay bañ ko faqasal ben yoon pour que mu eggale mission fi ci Sénégal lépp luy ambition am li mbébétam pour Sénégal jëm kanam yaakaar naa ni képp képp ku yeewoo Sénégal nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom da ko war a gunge ndaxte intérêt sénégalais yëpp mi ngi reposé wu ci loxo Bassirou Diomaye Faye te tey su réussir émission képp ku yeewoo ci Sénégal yaakaar naa ni da naan alhamdulilahi rabbil alamin <laughs>